bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala asrafil wal mursalina seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum mbokki jullit yi laay laay laay Mamadou Makhtar maa ngi leen di nuyu ci kalimatu laa ilaha illallah bi ñu seydina limaamu jox alayhi salaatu wasalaam leen ziyaar bu baax di dellusiwaat ci Soodaan TV di def suñu troisième euh, émission yóbbalu koor ginnaaw bi ñu nuyoo xalifatul muslimina muhammadul maxtaar ibnu seydina manjoon saahibul kiram ibnu seydina imaamallahi kullu imaamu imaamul aramayni di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi barke bàyyi laay mu tedd mi waaye di ñaanal seydina baay abdullahi kooku nga xam ne lu ne ci ñun gannaaw yàlla moo ko ci def duñ ko fàtte mukk abdullahi di ko ñaanal yal na yàlla yaatal moom te taas ñu ci barkeem ak njabootu Seydina Limaamu ga mu nekkal foofu yépp laay maxtaar di ziar bu baax a baax a baax ni euh, mbokki jullit ñi di dellusiwaat ci suñu émission bi nga xam ni euh, mooy yóbbalu koor fii ci soo Soodaan TV ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci bàyyi laay alayhi salaatu wasalaam ñu ngi naan leen laay laay laay Mamadou Maxtaar émission bi passé ñu ngi woon ci jëw jeexoon na déedéet ay jëw du jeex mukk waaye nag sëñ nañu bu ñu laalee tuuti rek mën a duggaat ci leneen laalaat tuuti ñaan yàlla euh, comme ni ñu ko ñaane woon daaw rek yàlla mi ñu gunge woon daaw gunge ñu ba nëgër ni ñu ngi koy ñaan yàlla nañu gunge ay at yu baree baree bari may wax ni xam-xam newu fii li ma waxoon rek laay waxaat xam-xam nekku fi de laay Mamadou Makhtar moo tax léeg-léeg ma wax ba yàgg daal ni bul di xool ci man mi ko wax ndax dama jubul ba di wax na nga xool maanaay li ma wax kon nga am yadaayati kon yàlla nañu ko yàlla defal ndaayati boobu yàlla nañu ko yàlla defal laay Mamadou Makhtar ah mu mel ni nag euh, fii ñu toll nii dañu génn ci wàllum jëw ñu ngi ci sunu dugg ci troisième émission bi nga xam ni mooy yóbbalu koor lan la ñuy jël tey jox ko jaam yàlla yi comme yóbbalu koor laay Mamadou Makhtar suukaru koor suukaru koor a ngi yàq àddina bi amuma ko mën na yàq sama sëy ndax lu rafet la ndax yàlla moom moo ñu digal loolu ci weeru koor da ngay gis ni couple yu bari day yàqu bu koor gi demee bay am fukki fan ak juróom lan moo koy yàq jox ma damay yóbbu suukaru koor yow sa suukaru kër sax saful nga ne da ngay yóbbu suukaru koor waa lii moom jaamu yàlla la wala ngistal la te ci émission bale jàll maa ngi naan leen Cheikh Mbacke nee na na jëf te yàllay tax ngistal jur na naaru laay bu kenn tàyyi nanu sellal suñuy jëf ci rabbana waaye dañuy def loo xam ne lii ñun ñi koy def sax xam nañ ne teguñu ko fenn yow da ngay yor sa suukar mu manqué amoo suukar sa suukaru kër saful nga taxawu sa borom kër la yël ko ci danga may jox damay yóbbu suukaru koor amaana ñi ngay yóbbul suukar koor ñoo la ëpp suukar fuuf bu fekkee lislaam rek la bu fekkee lislaam rek lañ koy defee te yàlla moo tax ña ngi koy yóbbul bu nu seetloo ni yow mii sa suukar matul waruñu toog sax xaar la ngay indi suukar nanu jëkkanteeg yow andil la suukar xamal la ne la suñu càmmiñ moo lay denc te li la war ci ñun moo ñu war ci yow bis boo amee di ñu jox bu ko defee kooku sax yow soulager nga ko waaye sëy yu bari surtout xale yi seen sëy yi dafay yëngu ci problème mu suukaru koor bu ma war a yóbbu suukaru koor bi ma war a yóbbu ba nga xam ni la waroon a neex lépp day naqari bu fekkee nag jaamu yàlla day dem ba metti doonatul jaamu yàlla laa yukallifullaahu nafsan illaa wasaha yàlla moom nee na tegul mbindeef lu mu àntanul waa léegi lan moo tax ñun ñu bëgg a jël lu dis gan yenu ko teg ko ci suñu kaw mbagg yi ba pare yamuñu ci ñun ñu yenu ko de waaye dañ koo yen suñuy boroom kër sonal leen ci witt witt nañu teggi loolu laay Mamadou Makhtar teg ko ci suuf te ñu gën a fonkaat njaboot gi xool njaboot gi xëy na sax jamono yi ñu toll ni da ngay gis koor gi ñëw nekk ci jamonoy seddaay mais amoon na ay temps yu nekk ca gannaaw nga xam ne koor gi day doon tàng da ngay gis xale yi nekk ci plage yi bu ñuy jóge ci seen kër yi li ñuy wax dañuy daaxi koor koor du lu ñuy dàq koor bu ko dàq gan gi ñëw ci yow boo ko dàqee def nga lu ñaaw te koor gan la gu ñëw gane si la nga ne maa ngi dàqi koor wax nga dëgg nag danga koy dàqi parce que bu dee soloo lu baax ba ngay jóge sa kër koor nga faj tàggoo ñu ni woor nga ba nga eggee nga commencé lekk ba nga yeggee nga commencé di def lu la neex ba ngoon jot nga ñëw foo demoon dama dàq woon koor <laughs> wolof juumul danga ko dàq waaye ki toog ci kër gi yor kurusam yor si jaadaam yor téeréem moo xam nan la fa ban façon jaamu yàlla la def bu dee julli bi la baax na bu dee tasab lay def baax na bu dee wér wirdam lay eggale baax na ak bu mu ci mën a doon rek mu ngi góor góorlu ci digganteem ak boroomam ba nga xam ne bii euh, dara échegul ci li mu ci ci sama yaakaar book dara échegul parce que nag dafa am loo xam ne sunu boroom moo ko xam ki baaxle ak ki baaxlewul nit xamu ko yàlla moo ko xam waaye góor góorgóorlu na daal ba nu jàpp ni moom mi ngi ci ba nu xam ne mi ngi ci li ko yàlla digal par rapport ak ki nekk ci la ka neex ñëw ni dama dàq ji woon koor koor du lu ñuy dàq. koor danga koy xëcc noo koy xëcce lépp liñ la digal nga def ko lépp liñ la tere nga bàyyi ko gën a góor góorlu bàyyi laay alayhi salaatu wasalaam de daf ñoo digal lim ñu digal koor gi du ma ni koor rekk bàyyi laay daf ñoo digal bépp xeetu jaamu yàlla waaye daf ñoo tere bépp caaxaan kon nag laay Mamadou Makhtar lépp lu baax nan ci ne lu bon ñu bàyyi ko di ñaan yàlla mu gungeel ñu boppam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin